actu du jour ami internet yu 24 actu yi bàkk ba jibatina dañu koy doo rek Aminata Lô Dieng mi nga xamante ni ki tey jii ci altine ji dañu ko daal di defeere ginnaaw bañ ko jàppee woon rek ci li nga xamante ni moo di ñàkk respecté lii di ak couvre feu ca brigade gendarmerie bu Wakaam ñoo ko tegoon loxo rek niki aljuma ji ñu génn moom ak frère am boobule moom Aminata Lo Dieng nag nekkoon na ancien ministre ci jamonoy Abdoulaye wadd dafa daal di violé woon rek li nga xamante ni moo di couvre-feu moom ak frère am boobee ah, ginnaaw rek bi mu bëggee jëndal li nga xamante ni moo di doomam lu mu lekk mu koy jënd nag 21 heures rek dafa daal di passé tax rek gendarmerie Wakaam daal di koy tegoon loxo moom ak frère am boobee ba mu demee rek dafa daldi di mer ba futtu ba yëkkati rek ay kàddu jëme ci njiitum réewum Sénégal tax naka ñu daal di koy jàpp ba tey rek ci altine ji daal di nañ koy defeere moom Aminata Lô Dieng ba tey rek ci ñàkk respecté li nga xamante ni moo di couvre ak lépp loo xamante ni dajaloo jamono ji nar indi lépp luy propagation rek jëm ci Covid 19 bi foofee rek ca sali bu mbuur lañ fa jàpp rek moo di du tolloo ko trentaine rek de person moom lañ daal di teg loxo ngir ñàkk respecté li nga xamante ni moo di rassemblement yi nga xamante ni tere nañ ko rek jamono ji ma nga amee foofee ca sali bokk rek ci département bu mbuur buñ sukkandikoo rek ci ëttu yëglekaay bi di RFM. ñu daal di wax bile yoon rek ci benn drame bu amoon niki démb rek ci dimanche ji en plein vol buñ sukkandikoo rek ci ëttu yëglekaay bi di las avion bi dafa waroon a quitter Dakar daal dem Londres waaye itam dafa waroon def ab escale rek ci aéroport Bruxelles buñ sukkandikoo rek ba tey rek ci ëttu yeglekaay bi rek benn jigéen rek moo daal di décédé ci biir vol bi ndaw si rek mi ngi tudd Sankuru Mbanjang nekk originaire u Gambie ba tey rek ñuy wax ak yéen jamono ji xamaguñ bu baax lan moo waral boobu boobule desee waaye autorité espagnole yi nga xamante ni ñoo chargé mbile mbir danañ ci indi rek ay leeral ba dinañ leen ko toppalaa ci suñu yeneen a jotaayu xibaar ñu wéyandi ca diwaanu Touba ñu gis rek jamono ji askan bi am nañ jàqare lool ci faatu gi ak tegloo gi nga xamante ne ni tegloo na ko jamono ji ba tax rek daayira bi ñu tuddee xidmatul xadima daal nañuy génne rek chiffre yi nga xamante ni amee nañ ko ah, ci 2020 bi jëm rek ca cimetière ah, Baqiya bu Touba buñ sukkandikoo rek ci ëttu yëglekaay bi di Les Échos moo xam le ne ci 2020 bi rek am nañ lu toll ko 12 272 rek ci ay doomu aadama ah, ci biir loolu 11 118 yi ay góor góor lañu 1168 nekk ci ay jigéen yoo xamante ni jenc nañ leen rek ci 2020 bii ba tey rek buñ sukkandikoo rek ci daayira boobu di Muxaddamatul Xidma xam la nañ ne ne ñi nga xamante ne nii nekk nañ ñu fay jenc jógewuñ fenn dul Touba ak Thiès ak Diourbel ak Ndakaaru ba tey rek ci li nga xamante ni moo di lim bi nga xamante ne am nañ ko ci atum 2020 faatu gi rek li ko waral nekkul lenn lu dul paludisme am nañ ci 373 ak tension artérielle am na ci 297 ak accident yi ñu ngi toll ci 273 ñi ame diabète yi ñu ngi toll ci 83 ñi nga xamante ni dañoo am mort naturelle nga xamante ni dara dalu leen mi ngi toll ci mille quinze a bobu lee lim rek la ñu am ci atum mille vingt bi jëm rek ca cimetière yooyu lee adi bàqiya bu Touba ñu jubali ca diwaanu Las Vegas buñ ko waxee rek xel yëpp day daal dem ci ki nga xamante ni moo di uh, moo gétt bi la yoon rek dañuy daal di wax uh, ci amaneex ginnaaw rek ci confrontation boobee nga xamante ne nii uh, seqoon na ko ak biisu ngoone lam fa xamle rek moo di foofee ca Las Vegas daal ab siisante rek ak dëmmanteek blekkante rek moo daal di am foofee ci seen biir loolu rek du samay kàddu amaneex rek moo xamle yooyu le kàddu daal koy jëmale rek ci seen dundin foofee ca Las Vegas ñu daal di wéyandi wax bi la yoon rek ci Omaro ak ki nga xamante ni moo di Ayo Balde ginnaaw rek seen sëy boobee nga xamante ni dafa daal di judd rek judduwaale ay coow Ayo Balde rek di yëkkati rek ay kàddu yu ñagas di ko jëmale rek ci ki nga xamante ne ni moo di Omaro ngir bëgg rek mu daal di koy may baat ginnaaw rek ba mu doyalee rek ci boobule sëy waaye rek ki nga xamante ni moo di Khady daal moo génn rek def ab audio bu 17 minutes daal di jëmee rek ci ki nga xamante ni moo di Ayo ak Omaro ngir xam ne ne Ayo def amul benn yoon njariñ ndax jigéen la dafa war a xoolaat bu baax a baax tooginam waaye rek du ko may xaalis bu bëri daal koy may oto may ko terrain mu daal di récupérer lépp rek da pare daal di bëgg rek tas li nga xamante ni moo di sëy bi waaye nee na loolee daal waru koo def ndax jigéen warul topp taaram ba tax rek muy def lu ko neex waaye nag li muy def nag nekkul lenn lu dul ay yàq deru jigéen moom daal nee na moom xarit daal nee na bu sañoon rek ki nga xamante ni moo di Ayo Baldé mu xoolaat bu baax a baax uh, tooginam dañu koy daal di jeexalee ki nga xamante ni moo di Ouzin Keita ginnaaw ba mu génnee rek uh, def ab vidéo uh, di tàkkale ki nga xamante ni moo di Aïssatou Diop Fall ginnaaw Aïssatou Diop Fall bi mu xamlee ne ñi nga xamante ne nii ñoo di invité ki nga xamante ni moo di Ouzin Keita nekkuñu ñenn ñu dul ñu perte moom Ouzin Keita nag nee na moom Aïssatou Diop Fall moo njëkk a perte ndax moom moo ko njëkk daal di yëkkati yeneen i kàddu daal cay teg nee na nag mu bàyyi waxam ju bari ji nga xamante ni moo ngi koy nekk choqué ndax moom li ko naqari mooy dañ ko invité amul ay vues te moom lañ invité mu am ay 1 million de vues kon nag moom moo xew moom Aïssatou Diop Fall na nangu ne moom Ouzin Keita moo xew li rek moo fi gënoon a fës ami internet yi a dig daje rek lañ leen di jox ba ëllëg ak jàmm